koy téye bu fekkee formé wuñ leen moo tax ñun ñu bëgg a teg suñu baaram ci formation bi former acteurs yi bañ a former collectivité locale bi kese parce que collectivité local bi muy maire bi wala muy conseil municipal bi am na ñu nekk ci biir mairie ba ñooñu ñooy artisan yi ñu ñooy ñi nga xamante ni ñoo yor PME yi ñooñu ñooy ñi nga xamante ni ñoom ñooy liggéey mais loolu yëpp état bu ko defee li gën a am solo mooy secteur privé bi ñëw accompagner état parce que secteur privé moo am vocation di créer richesse moom mooy war a ñëw nangu ànd ak ñun ci biir gox-goxaat yi ñu def investissement yi ci war maa ngi leen di wax léegi léegi ne am nañ benn programme bu mag boo xamante ñu ngi ko tuddee case numérique case numérique bi dañ koy samp ci biir gox-goxaat bi nga xamante moom la ñu tànn bu mu remplir critères yi ba pare. bu ñu nee case numérique nag néeg la boo xamante ni dafa am ay caractéristiques aada ak cosaan mais ci biir case bi dañ fay dugal lépp lu nga xamante ni numérique la.